programme programme wu ko noonu. digle ñu ko borom noonu. te dañ fi xaw a bëri mooy yu xonq yi tamit xonq yi. certes mel ni dama boobu moom it ba ci dama gërëm benn moom dañ ko ñu def mënuloo xool xam ndax nañ ko dagg wala. alaa kulli euh, du ma wax ci lii waaye charaf yi nga xam ne moom la ñuy di indi ci di xool mu di xool jar di bàyyi saa yoo ci dara laxasoo loo xam ne wóor na ñu ëpp ñu koy wax wala ñu koy indi dañuy dem ci ay seetkat ki gisaanekat ñu di leen ko wax di leen wax ne def leen nangam def leen nangam mm-hmm. ñoo ko indi yooyu war a si konoon ci gàtt yi dañ leen war a jàngal sax mm-hmm. ñu profité jàngal leen mm-hmm. ne ay sondela ay guro yu weex ak yu xonq ay puso ay këyit yu weex ana noddukat bi genre yu dem noonu te suñu borom bu muy wax saraxe waxul noddukat wala yilimaan wala nangam ay melokaan la wax yoo xam ne noddukat bi du caagee faw mu nekk miskin wala faqir wala sonbor wala kenn ci ñi ko yelloo genre yu mel noonu moom diggante bokkaale ak bidaa diggante bokkaale ak bidaa boobu lay soog a bu fekkee ne nag lu demeewul noonu la mel ni indi ñam ci sàkk ji fi léegi kooku xamaluñ ko ne moom dafay defar ñam yu mel noonu ci ren bi fenn masalan bu boobaa loolu mënees na koo jël bu loolu mënees na koo jël ñëw jox ilimaan bi may ko ab yére may ko mbubb wala genre mel noonu may ko mbaxane genre mel noonu su fekkee ne waa xamaloo ko li ngay jàppale mooy daal ko jullit la dinañ ko baax mais mu am beneen mbir nag moo xam ne léeg-léeg dina war a tax imam delloo ko donte mel noonu day dellu ci ijtihaad imam mooy ne li muy saraxe sax gisuma ci lënt mais waa ji moom fii la dëkk ñu julli si jàkka ji kenn ku gis ci jàkka ji mu jeex ci jàkka ji ci bari day am lu mu jox bu dee sarax ba du sarax boo xam ne mën nga cee xalaat a ko pour ñëw jaaxle di fi indi sarax jàkk yi dañ koo tabax comme ni ngeen jàll si wax julli ak tudd yàlla waaw imaam nag mën na gis maslaxa mooy mu jël mbax ne ma mbaa mu jël kaala boole ko waar boobu mu ko waar gis ne loolu moo gën a dugal waaram ci biir xol bi imaam mën naa gis ne maslaxa kii ku mel lii maslaxa moo bu ma sax mbax ne ma loolu mi ngi dellu loolu dellu ci ijtihaadu imaam te mu gis ca xaala boobu bu boobaa seen foo demee fa ida asaaba fa lahu ajran wa ida axtaa fa lahu ajrun waaxid bu tombeek la gën te doon dëgg day am ñaari yoon bu dul loolu moo am benn yoon loolu bu ko waaja defoon lu gis ko bi mu indee kàddu bi def nii rek gis gisu ca fàtte ja sañ na koo laaj bu ne ah man de bàyyi ma ko xel wax dëgg yàlla nii lañ ma ko jaayee mën nañ koo dégg waaye bu ne nii lañ ma ko digalee ñu taxaw ko moom seet nan la def laaj moom moom

na waxtu tàkkusaan ci moom dëgg la waxtu tàkkusaan nag dem na ko fekk ne moom euh, fàttewul waaye fu mu ko doon yóbbu foofu ci waxtu bi la bokk tere la mu doon yóbbu tàkkusaan foofu ci waxtu bi la bokk nag foofu la ko fàttee kon ci biir waxtu bi la ko fàttee ci biir waxtu bi la ko fàttee bu boobaa boobu waxtu bu mu ko fàttaliku mooy waxtu loolu la ñu teel a wax ne. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها فذلك وقتها nga julli képp ku nelaw ci ab julli wala mu fàtte ko na ko julli su ko fàttalikoo mooy waxtoom ci xàqam boobu mooy waxtoom kon soo ko fàttalikoo rek ci waxtu mën a doon farata bi taxaw na moo tax imaam Maalik di gis ne bu la fekkee ci biir farata sax farata boobu rek waxtu yaa ngi ci farat maanaam waxtu julli bi nga fàtte julli bi nga fàtte woon léegi waxtoo taxaw bu boobaa nga koy dañ koy julli allahu ko fay su ko jullee su ko ci timis bi ay jéem déedéet moom benn bi julli bi donc li nga xam ne la fàtte boobu doom la julli wàllu saako. léegi dafa am ñaari mbir. Eh, imaam war a xool ba xam ndax li mu jël wala lu ko jël donc loolu dama ciy laaj benn laaj ndax war a xaaral ñu jël par kon donc imaam yi teew ñu xam ne ndax war nañu jël loolu parce que souvent may gis ne fii dañ fi jël ay sarax luñ doole ñu jël te ma fàttali ko moom imaam ma Sall ma jàll dañ la waxtaan wax li nga wax li exactement loolu la digg man dañu ko mën di dëppoon kon bu ñu jël sarax wala ñu jël n'importe quoi nekk Sénégal nekk dëkk boo xam ne bii c'est-à-dire nit ñi amuñu pas-pas ñu ne ah lii kat mënuñu ko jël parce que sàngam kees moo leen di jàpp ba du ñu mën a nii dëkk dëkk moom la ñu war a wax. donc loolu bu rëy lañ ci askan bi c'est-à-dire ñu war a wax dara ne lii kat duñu ko jël parce que sàngam nangam mais léeg-léeg dañ ko jël dañu kees woo c'est-à-dire amuñu digneur <coughs> dañ koy war di delloo ci imaam dañ koy war di delloo ci imaam ba imaam nag gis ne kii moom am na ci taxawaay di jaar di nga xam ne moom la imaam war a taxaw wala sax gis ne kii moom ci gën a taxaw imaam délégué ko wala mu wax ne bu ñu ko bu ñu ko indee ca jiw jiw moomu xam ne ni muy def mais su dul loolu lay sosaan ci yooyu nga xam ne moom mooy xew ci jàkka yi rawatina nag lu laaj. li tax ñu teg fi imam muy laaj xam-xam laaj natt laaj ijtihaad laaj lii nan lañ ci war a def kooku lañ ci war a di def non moom laaj ci masala yu sànq ba euh, di doon wax ci waaye waxitaalu bu kufr mm-hmm. ma ne léegi foofu comme chia yi dañuy mm-hmm. profité di di jam aaw yi mm-hmm. ndax da doon ki wax euh, euh, Maalil Maalil Ba Ibn Abi Talib ma doon laajte foofu ndax foofu ci diine la. te mm-hmm. comme ni nga wax sànq ne ci boo ko ci diine loolu naa xeex boobu ci diine. Mm-hmm. fan lañ koy nattee ba ne bii xeex ci diine. Mm-hmm. mooy def kufru la. waaw. Ah. maanaam li xeex ko ndax diineem bokkul xeex ci diine maanaam masala diine ñu boole xeex mais nga xeex ko ndax diineem boobu mooy kufru. ba nga xam ne day génne ci islam te Muawiya euh, dugul woon ne Ali mi diine mi moo tax may xeex ak moom wala Ali dafa noonu Muawiya euh, dama laaj en fait ci xarit si ñu jàng commencé waxee boo xoolee yeneen saa si ni mu doon dundee ak saxaaba yi eh, damay seet lu ci bëri moom yenn saa yi day gis ay xarit yoo xamante ne dañuy ñëw wane ni yenn saa si moom am na en fait nekkul ku ñàkk. du mm-hmm. ku ñàkk mais yenn saa yi ay jamono yoo xamante ni dina nekk xamante ne dafay ñàkk. Mm-hmm. Eh, ba tax ay xarit yu ñëw di wax naan dañuy toog lu weer. Mm-hmm. kër gër dara fa jënd ko daal di mel noonu. ci jamono yooyu aussi nga gis. am ñu nekk jàll ñoo xam ne seen ñàkk jigéen dayoo. Mm. ba am na xel suñu romboon. Mm. waaye ñu mel melal sax ñoom seen yaram. Mm. ay mbir yu ci nekk ndax taraayu ñàkk. yi gis naa yenn xel yoo xam ne aussi yenn saa yoo gis euh, muy réagir ci benn situation bu am génnee. ànd ak loolu lépp damay wax ni est-ce que euh, il faut que tey gi yëpp pour mën a xam euh, yenn saa yi noonu tey dëgg-dëgg. ndax yenn saa yi boo ko jëlee noonu euh, ponctuellement noonu noonu da ngay gis ni day mel ni yenn saa yi nag la lu teewoon mu jël loolu mu dencoon xëy na yëpp koy jaxase wala mu jël yëpp ko ci keneen ku ñàkk wala yu mel noonu waaw loolu laa doon laaj Eh, yow sa wax ci jàngale léegi na nuru laaj <laughs> ndax jëlee nañ ci fàttaliku te ku ko dégg it eh, gën cee jëlee kon yonent bi sallallahu alayhi mu doon dundee eh, ne situation newul woon stable ci benn mbir bu daan am nag daan na am loo xam ne bu fekkoon ne stabilité ci am-am lay wut kon dootul ñàkk ko foofu loolu daan na jaar ci loxo hmm. léeg-léeg téeméeri giléem li ci ëpp ci loxoom la ko rendee sallallahu alayhi wa sallam téeméeri gileem ça fait des millions moom millions ay millions la def na ko moom sallallahu alayhi wa sallam doo ko doon wut léegi mu bon bon bon bon di génn cinquante mille ndax gileem cinq cent mille sax yombul gileem cinq cent mille yombul su ko defee daan na def noonu waaye kon mooy ne daawul denc ragalul woon ñàkk da daan joxe joxe bu ragalul ku ragalul ñàkk te moom it ko xamoon priorité la lii moo jiitu teg ci lii teg ci lii teg ci lii loolu xamoon na ko sallallahu alayhi wa sax dërëm bi nga jël jox ko jirim ak dërëm bi nga jox miskin ak dërëm bi nga def ci sa njaboot nee bi nga def sa njaboot moo ëpp yoon ça veut jamono boobu muy jël loolu di ko joxe bokkul ak jamono bi nga xam ne waa këram ni ngi sonn ak xiif waaw bokkul ak tamit jamono boo xam ne waa ahlu ñoom amuñu lu ñu leen mais da doon jaar ay jamono yoo xam ne daan neex ay jamono ñëw yoo xam ne day metti ci ñëpp ba saxaaba ridwanullahi alayhim sax ñu ëpp ci ñoom yëf yi laal leen waaye léeg-léeg tekkiwul ne daana leen laal ba daj ñëpp loolu tamit ci maandu te lislaam ak def li mën a nekk dund bi mën a jaar yoon ci la bokk ci maandu te lislaam benn waaye def ma ne dama am xarit sama xarit bi ne ma sama xarit euh, suñu xaritoo bu fekkee ni dëgg rek ci lislaam lu ñu am ñoo ko war a bokk man déedéet saxaat yi ñii dañ daan am alal boo ñii ñàkk lool ay mbokk lañu hmm? damay wut noonu waaye dañu ne ñi am alal daal dañuy def lu baax mais tekkul ne dañu génn ci seen alal ba a amati alal comme am na fi ñu amul alal te am noo xam ne bu ñu ko doxalee rek moom lay doon defee loolu lépp day wane mataayu lislaam toujours dafay digle lu baax di tere lu bon ci cadre al kii euh, lan la ñuy dénk euh, sàkkukatu xam-xam yi ci jamono ji ak kañ la li ñu bëgg a ci yoonu yàlla ak kañ la sàkkukatu xam-xam sañ a yéeg barab di ñu naa ne lu gudd lay doon te sore na incha allah bu ñu ñëwaatee ñu tontu